Euh, bon paa bi bi ñu ko parce que su ma juum dañ ko njëkkoon téye après ñu bàyyi ko mu ñibbi. Mhm. après beneen bi ñu ñu ñu arrêté ko. ci fay ñu koy toppee diffusion de fausses nouvelle offense au chef de l'État est-ce que jàppal nga ni dinañ ko ci yóbbu mandat dépôt voilà. am. Hmm. waroo euh, parce que njëkkoon nañ ko convoqué il est parti tout bonnement parce que comme je je di l'ai dit tantôt son papa c'est un commissaire de police de classe exceptionnelle donc mm. xam na comment sa se buy mm. wax tamit day xam lu muy wax donc ñu dem woolu ko tout bonnement il est parti dem wuyu ñu woowaat ko mu dem ñibbi ñun foogoon nañ ne sax après affaire bi day day day jeex mm-hmm. un bonjour on nous appelle pour nous dire écoutez jàpp euh, dañoo convoqué sa papa dem na téye den ko pas compris ñu dem ni tee ko foofu yóbbu ko commissariat du port après euh, trois jours yëpp on n'a pas pu le voir dañoo interdire euh, formellement ñu gis suñu papa mais même son épouse n'a pas eu le droit de de le voir durant ces trois jours là. après ils nous ont pas donné de parce que sa papa ñu jàpp ko je pense que la loi devrait nous permettre de le mm. voir. même bu doo dara sax soon épouse mm-hmm. doo jàpp nit ki rek tënk ko noonu surtout pour euh, euh, pour pour pour lu léger di mm-hmm. nga jël ko tëj ko trois jours bàyyi woon njaboot mu gis ko mm-hmm. vraiment moi je fais confiance euh, si si justice Sénégal après certains me diront qu'il n'est pas au-dessus de la loi j'en suis consciente il n'est pas au-dessus de la loi c'est pas qu'on dit waxu ñëw ñu rek ne non bàyyi leen impérativement notre père parce que fii ñu bëri jàpp ne seen papa d'accord mais bu fekkoon tey leer na ma man objectivement ne sama papa ah lu mu def nii damay bàyyi yoon def liggéeyam. parce que il a tort laa dama doon toog fii di wax tey. mais c'est parce que moi je sais que dañ ko jàpp injustement loolu ma war a tey ma toog fii nii. parce que c'est c'était pas normal ñu dem après tribunal euh, yóbbu ko defeere ko c'est c'est très compliqué. c'est très dur vraiment. je pense que war na fa war na mat environ une euh, deux semaines environ. oui alors mhm. famille bi naka la koy dundee sinon balaa ñuy ñëw ci famille bi justement sànq mhm. yaa ngi wax ni li ñu ko jàpp c'est trop bas. Mhm. mais est-ce que gisoo en quelque sorte c'est la personne de commissaire Keita kilifa la peut-être kàddoom parce que après dafa def ay commentaires ni su dee moo am même bu fekkee utiliser na moo su dee. donc euh, affirmé wul en quelque sorte information bi mais n'empêche que comment commentaire bi est-ce que nekkul moom bi. fan lañ nekk nous sommes dans un pays démocratique on a le droit de de, de s'exprimer bu ñu waree débattre par rapport à quelque chose dañ ci war a débat loolu waru nekk motif pour ñu jàpp nit ki nii nekk tëj ko pour lan après comme je je l'ai je l'ai tout le temps c'est parce que peut-être il il euh, il dérange il dérange par rapport ak ses idées ak li muy wax peut-être. nga jàpp ni sa papa dafa déranger. man foofu laa ko mën a bon après je peux me tromper. mais man doon noonu rek laa ko mën a gisee. noonu laa ko mën a gisee parce que waxu fi lu tax ñu war ko mën a jàpp parce que gis neen ñu wax pire te ñu ngi dox seen soxla man gisuma fi offense offense ba ñu wax noonu gisuma ko ci vraiment. parce que c'est pas une information boo xam te ne dafa ne ok damay dem inventé ji ma ñëw wax ko. Mm-hmm. non non mon père il n'est pas comme ça mm. encore une fois c'est un commissaire de police de classe exceptionnelle donc kooku xam na loi xam na loi lu mu ko may ak lu mu ko mayul mm-hmm. d'accord donc il va pas s'aventurer dans des futilités qu'on se dise la vérité parce que information yooyu noonu am na ñu ko jot wax ñu bëri et pourquoi euh, pourquoi pas ñoom ñu ñu convoqué leen mm-hmm. convoqué wuñ leen commissaire keeta leen si convoqué lan laa si mën a xalaat leneen lu dul ko peut-être c'est parce qu'il mm-hmm. dérange mm-hmm. c'est c'est juste ça encore une fois je aussi à dire que moi suis apolitique mm-hmm. politique indiwuma si je suis pas contre euh, le régime wala quoi que ça ñëw pour euh, tirer des balles réelles et tout je suis pas là pour ça c'est juste que am naa droit toog défendre sama papa parce que dañ ko jàpp injustement moo tax ma toog fi tey di wax euh, bon jàpp bi ñu ko jàpp jàpp nañ tegul si yoon d'accord bi mi ngi Mhm. ban chambre la nekk. chambre 42. chambre 42. Euh, chambre 42 bon de façon privé nit liberté moom euh, neexul d'abord rëbës neexul pour pour bépp nit bu fa nekk. Mhm. mais ndax yaa ngi koy gis. waaw ñu ngi koy gis euh, parce que il a droit à des visites chaque chaque jeudi. Mhm. donc tout temps ñun ñu ngi fay ñu ngi fay dem di ko seeti. Mm, ban situation nga ko fekkee saa yoo demee comme un homme qui en prison. c'est pas c'est pas sa place hein. mm -hmm. parce que il a il a il, il battu pour sa patrie il a toujours été là pour le Sénégal bu koy jàpp dañ koy jàpp si loo xamante ne leer na naañ ni jël commissaire Keita tey tëj ko mm-hmm. mais doo jàpp nit ku toll noonu dimension bu toll boobu bu toll noonu nga koy jàpp pour des des des choses aussi bas mm-hmm. moi je trouve que c'est injuste mm-hmm. parce que bu du dara war neen xool moom fu mu jaar sacrifice yu mu def pour réewam parce que 40 ans nga toog di protéger sa sa sa réew dañ la war a jox respect maanaam fay ñu ko lum ñu lum ñu liggéey fay ñu ko ko vraiment moom ça c'est décevant quand même. waaw mais de loolu côté aussi ñenn jàpp dafa yàgg acharné wu ci Sonko dafa yàgg acharné wu ci Sonko et cetera en fait. pourquoi les gens ils pensent que loolu acharnement la je mhm. pense pas que acharnement la il a mhm. donné am na si droit day joxe mhm. point de vue am. par rapport parce que parce que parfois mu naan euh, di tudd ay ñi rebelle et cetera et cetera parfois dañu utiliser ay moyens day xaw a diis voilà. non je pense pas qu'il a parlé de rebelle vraiment non non bu am na information yu fi doon génn sur dëkk bi mu xawee tàng ñu ni ay forces occultes bi ministre de l'intérieur ba xaw mais moom si ay intervention daf doon même bu nekkee daanu woon mais de temps à autre da doon utiliser mooy mais am na droit commenter mhm. Mhm. parce que information yooyu noonu du commissaire Keita moom moo koy véhiculer mhm. day jël information ñoo commenter Mm. je comprends pas am na si droit mm. donc euh, parce que tamit qu'on se dise la vérité d'accord jeunesse bi gëm na gëm na Ousmane Sonko président Diomaye on s'est battu pour euh, pour qu'il soit au pouvoir et tout mais euh, j'aimerais juste leur dire qu'ils ne se bu ñu bu ñu fàtte seen seen objectif lu tax jeunesse bi fal leen ba tey ñu agsi fii nii parce que ñoom quoi qu'on dire balaa ñuy dem ba toog ba nekk ci pouvoir bi ñoom aussi ils ont dit des choses Mhm. d' accord et ils n'ont jamais été inquiétés par rapport ak yooyu noonu wax yooyu noonu et je pense que yooyu wax yooyu c'était c' était pire d' accord et pourtant ñu jeunesse yi dinañ continuer gëm leen pour un projet votel leen donc bu ñu demee ba toog tey je pense que dañoo war a focus mhm. si les priorités ci cherté de la vie ci les immigration clandestine mhm. tey lu toll ni immigration clandestine bi tey ñu ñu ñuy wax ay la système de yoole yoole alors ko mm-hmm. ça pouvait être mu nekk gën a mën a creuser je pense que foofu la foofu la foofu la xeex bi nekk dugg ci aspect politique aussi c'est pas c'est pas pour abattre l'ennemi encore une fois je suis mm-hmm. apolitique mm-hmm. vraiment je respecte ce qu'ils font j'ai énormément de respect pour eux mais c'est juste pour leur faire entendre raison par ma petite voix en fait mm-hmm. je sais pas si je peux dire ça parce que je suis petite pour ça peut-être mais am naa droit joxe sama point de vue par rapport ak juste pour leur dire que ñun dañ leen votel pour un déterminé pour ñu liggéeyal ñu parce que ñun am na lu ñu gën a am na ñoo xamante ne peut-être lu ñu def gën na grave te pourtant jàpp ñu leen donc vraiment ce que je veux c'est qu'on libère vraiment mon père bu ñu ko waree juger ni nga génne ñu juger ko après qu'on puisse euh, passer à autre chose c'est juste ko dundee euh, sa waajur bu jigéen sa yaay naka lay dundee situation euh, metti na metti na je peut-être nit ñi dañuy gis ñi ñuy toog di wax mais intérieurement on on vit l'enfer en fait parce que dañ ku nekk naka nat nat sa boppam rek sa papa ñu jël. tëj ko dafa metti trop c'est c'est mais bon dañuy dañuy nangu ndogal aussi et puis euh, ñuy continuer di si di si di si qu'on se batte quoi pour lui mhm. man looloo tax ma toog fii nii mhm. c'est pas pour autre chose mais mais bon rare fois yi nga ko ko gis parce que bu fekkee mm, deux semaines la donc mën nañ jàpp ni gise bi mën na bañ a bari noonu parce que visite yi tax ko tax ko bari c'est pas chaque jour nga koy gis mhm. mais rare fois yi nga koy gis si sentiment bi ngay am exactement ban centre. alors comme je je le dis tout le temps euh, les visites moom c'est tout c'est toujours un supplice. Mhm. man je je ba léegi je peux pas m'y faire. Mhm. mercredi su jotee du ma nelaw parce que damay xam ne jeudi je dois voir mon père et conditions yu ma koy gis du ma neex je comprends donc première semaine bi c'était encore plus compliqué da ngay dem da ngay jàkkaarloo moom da ngay jooy mère bi jooy nga jooy tu vois da ngay am lu la metti mais man su ma xoolee paa bi bët bu may xoolee ak nu ma koy xoolee je me dis qu'il n'a pas besoin de ça en fait que ñu ñuy toog di lamenté wu di jooy dama damay en ce moment je suis en train de jël émotion yooyu yëpp lem ko teg ko xam ne ne c'est pas le moment la heure bi fu ñu toll nii c'est c'est se battre pour que lui il sorte de prison nit ñi xam kan mooy commissaire kayta parce que ñu bëri dañ kaa xamul xam kan mooy grand commissaire Keita et que voilà qu'il puisse sortir de ces difficultés là c'est juste ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais bon rëbës la nekk nga baal ma semble 42 mais mën nañ xam ni foofu xëy na dundul paquetage comme on dit en fait. mais ça reste une prison. <laughs> muy chambre 1 2 3 42 50 ak condition bu ñu la mun ne ça reste une prison ah. c'est pas à sa place ah. c'est pas un criminel. c'est pas un voyou. defu fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw. dafa défendre ses idées loolu kenn mënu ko ko didil nit ñi neen delloo si seen xel quoi. Mhm. man man loolu laa am lu ma ci wax. Mhm. d'accord mën nañu ñëwaat si yow mais Amadou.